Euh, à la dernière minute nak si si neen ki nga xam ne moo le procureur euh, Ibrahim Ndoy alors donc euh, min kon à la dernière minute euh le procureur Ali Ndoy a été saisi jëmale ci affaire li nga xam ne moo en tout cas mm, comme annoncé hier ki nga xam ne moo di Thierno Bocoum mujj na daal di euh, joindre exactement la parole à l'acte de na euh, déposer li nga euh, ce mercredi 21 août le président du parti république des valeurs mom nak bureau procureur de la république un de ses conseils juridiques qui ki nga mom ki nga xam ne que moo di Thierno Bocoum nag euh, déposer exactement benn ko plainte daal koy accompagner benn responsable de leur parti pour daal déposer boobu dina xam modi plainte désormais la balle est dans le camp de l'autorité judiciaire afin que les Sénégalais puissent être édifiés euh, sur cette affaire ONAS soutien ki nga xam ne que moo di Alassane euh, Sall. C'est euh, compte li nga xamné que moo Xam donc euh, nous ko euh, j'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation les faits suivants et compter sur vous pour en donner la suite opportune Non, le ko ki nga que ne moo justement Thierno Alassane Sall saisiré mom Ibrahima mu le procureur de la République alors Alphonse Ibrahima Ndoye a été saisi pour la première fois euh, dans l' affaire ONAS ki nga xam ne moo Alassane Sall jàpp nañu yi fii daal leerul euh, li fi ministre bi indi tamit des naa leer enfin concrètement euh, démb wax nañ ko nga ne ku bëgg mu leer mu leer si yow ku bëgg mu leer du leer yow exactement naka na daal di jàngatee kaddu yi nga xamni itam euh ak plainte bi nga xamni itam jug joge ci ki nga xam ne moo di alors je pense que wax naa ko fii démb waxaat ko dama ne fi deuk yoon la senegal deuk yoon la ci dëkk yoon la ñu on est dans un pays de droit régi par la constitution cette charte fondamentale boo xamante ne ñun ñëpp ñoo si la constitution alors ñaari sénégalais bu ñu jotee c'est normal ñu dem ci kanam yoon yoon def liggéeyam yoon atte parce que ñun mënuñu atte man mënuma atte yow mënoo atte Thierno Alassane Sall mënul atte cerno a munul até ñaari yi ak kenen Munul Até. les deux chiens j'ai parlé des deux cerno maintenant je vais parler des deux chiens. Hmm. alors ñaari cheikh ñoo joté Cheikh ak Cheikh Tidiane dañu né Cheikh lañuy ci hmm. directeur mu dem le ministre Cheikh Tidiane Dièye. kon yow da ngaa jël position. dama jëluma position. tuuma yi nag. mais tuuma la. ah tant que leerul tuuma lay doon. <laughs> loolu Bato wala. wolof. d'innocence voilà. baatu kàllaa mooy wolof laa la wax. Hmm. tant que le yoonu leeralul tuuma lay doon. ba keroog yon waxuñu ni que kii moo am dëgg kii wala ki mo amul dëgg. c'est comme ça donc moo tax ma ne tuuma bu mel sénégalais yi mënuñu len atte dem ci kanam parce que l'affaire là est allée très loin l'affaire là est allée très très très très loin ba ba mané sa man dama Vous Arfan dama gis nga nit gëm devant 18 millions de sénégalais Yalla tan la né la yow la sangam comme directeur yow dinañ la nommer bërëb sangam comme ministre yow sénégalais yi dinañ la fal comme président de la république du jeex na. Oh. devant 18 millions de sénégalais. Mm, mm, mm. nga war a sant suñu borom bu baax. yàlla mi la fal moom mooy ëlbatikuwaat folli la te bu bala ba mu lay folli da koy jaarale ci nit comme. balaa mu lay fal da ko jaarale ci loxo nit am déet alors yow ñu folli la nga jël tuuma gi xëpp ko benn nit nga ne diw bi moo tax ñu folli ma nga fàtte yàlla xam loolu fàtte yàlla ñëw na déjà nga ne diw mi moo tax ñu folli ma alors que yow buñ balaa ñu lay fal buñ lay fal waxoo diw mii moo tax ñu fal ma wala amul mais euh, euh, enfant problème su amee. buñ lay fal waxu diw mi moo tax euh, ñu fal ma mais problème su amee dina am sûrement si que mu jugee. déedéet dama ne ñàkk gëm yàlla weesuwul ñu fal la waxoo diw moo tax ñu fal ma de waxoo ministre bi moo tax ñu fal ma de ñu folli la nga ne ministre bi moo tax ñu folli ma c'est surtout la même personne moo la fal moo la folli man j'aimerais que Cheikh Dieng mu am une affaire de gentleman ama lan lay def day porter plainte l'État du Sénégal via le président de la République. Hmm. ne ko a ma fal yow a ma folli. Hmm. pourquoi nga folli ma dama lay porter plainte. au lieu de porter plainte le ministre. c'est pas fof c'est pas le ministre qui lui a nommé. c'est pas le ministre qui lui a qui lui a qui lui a limogé. c'est le président de la République. il faut porter plainte contre Basir Diomaye Faye. Hmm. moom moom Cheikh Dieng. bu fekkee lu muy wax nii c'est ça la réalité donc il ne faut pas porter plainte contre un ministre. Mm. parce que dans nga ni ministre c'est archi faux. ça n'existe pas. le ministre là ne peut pas nommer des directeurs un ministre ne peut pas nommer des directeurs c'est le président qui nomme. Mm. les emplois civils et. militaires et c'est le président qui nomme. donc le ministre ne nomme pas les emplois civils et militaires. je crois que réunion Cheikh Dia réeroo dèjà ñëw na. Mm. Cheikh Tidiane Dièye bu muy tuumal lii. Mm. il ne il ne nomme pas ou bien il ne nomme pas les emplois civils et militaires. c'est le président de la République qui nomme les emplois civils et militaires. donc yow ku la nommé bu la folliyee boo jàppee ni que jaaduwul porter ko plainte. Mm. le président de la République c'est pas Cheikh Tidiane Dièye. maintenant ma ñëw ci loolu yóbbu nañu affaire bi ci ci kanam yoon ak yoonal ci kanam justice bi.

Cheikh Dieng mo gorew Cheikh Dieng ku ñu de folli ko mu jaral ko porter plainte mom mo gorewul il faut que gis nga nit da ngay Nous, ñun ñëpp sénégalais 18 millions de sénégalais bu ñu sañon jomay fallem leen name amna wala amul. Mm. ñun a 18 millions de sénégalais bu ñu sañon jomay wola président de la République wola la la denk na la li mais ñu ko am yalla mo ndogalé noonu yamul te lolu affaire de gëm yalla la gis nga un croyant yamul ci julli. c'est de la bonne foi. voilà yamul ci julli sol ay grand bubu fu l'islam wote nga teew fa di joxe xaalis déedéet lolou du yëfu jullit jullit fay am comportement bu baax yonent bi buñ ko laajee lolou la wax le meilleur croyant c'est celui qui a le meilleur comportement yonent bi lolou la wax c'est pas de julli ak kii génne asaka même si lolou dafa bok ci ay piliers l'islam mais yalla atewul ci lolou kese. yàlla dafa attee ci comportement comportement nit lu mu mel envers ses ses ses disciples. Mm. mais Cheikh Dieng loolu la war a gëm. Mm. yàlla wax na ko ci alquran. alors nguur man maa koy joxe man maa koy fokkati. alors euh, le ku yaakaar ne que lu ma la dénk du dugge ma yàlla mayewu dafay able. dafa lay able léegi bu la dénkee dara ba pare nangu ko da ngay gëm yàlla nga dem toog Cheikh Dieng. Euh, le procureur Ibrahim Ndoye a été saisi exactement avant euh, bonne intervention ngay si le procureur euh, peut-être pour tirer à l'issue de cette affaire exactement. alors affaire très simple nous avons mu procureur yi surtout ça il faut que le nouveau procureur Ibrahim Ndoye il faut que nous nous daf koy wutale ak procureur yi si jotoon jaar. c'est très intéressant donc taxaw si plainte bi ki nga xam ne mu taxaw ci euh, plainte bi ba pare bu pare ba pare surtout mu wax le droit il faut rendre le droit il faut dire le droit. dans une affaire qui oppose deux Sénégalais tu te dois d'être un arbitre bu tëddee njaaxanaaj bul far fii bul far fee da ngay wax le droit la justice. Et encore une fois rendu au nom du peuple. Donc le nouveau procureur doit rendre la justice au nom du peuple. Car les plaintes fu mu Jar. a bu jaree instruire instruire au niveau du juge juge bi les deux parties l'union ñoo layal ku am dëgg ñu ne ko yow yaa am dëgg ku amul dëgg nga ne ko demal bàyyi nit ki yow yaa tooñ. loolu laa gëm. Hmm. il faut rendre cette justice là au nom du peuple point. voilà c'est clair exactement si noonu euh, ba tey dina xam ne que moo di euh, ñeen aussi génn neen si wàllu wu mel mooy. Euh, si benn communiqué bi nga xam itam le cadre unitaire des syndicats bu ONAS def nañ ko nekk office national de l'assainissement du Sénégal ñoom itam ñuy renouveler.

moi ñu daal prioriser l'entrée de l'entreprise exactement ñoom ñi ngi exactement euh, seen ay intérêt yu entreprise avant naka daal di jàngatee dina justement la position des cartes de l'ONAS. ah mais ils ont ils ont ils ont une position très claire et simple bu il faut sauver d'abord la boîte. il faut penser à sauver la boîte. parce que les personnes passent les institutions demeurent gis nga ONAS c'est une institution suba bu suba Cheikh Tidiane le ministre il va partir On a des Cheikh Dièye on ONAS des les travailleurs qui sont ce collectif des travailleurs qui sont au niveau de l'ONAS hmm. bu suba ñoom dañuy dem que ça soit retraite que ça soit ñu que ça soit leneen mais ONAS day continuer toujours de des donc il faut préserver les intérêts de la boîte ils ont raison dis nga bon, ne ci ab Gal. da ngay ñaan gaal gi mujj parce que du sa jëmm jëmm ñi fa nekk bu gaal gi muccee bu muccee yow nga mucc ñun Sénégal ci ab gaal la nekk dañuy ñaan toujours gaal gi mucc ku yaakaar ni yow dinga nga gaal gi nga yaakaar ni bu gaal gi suuxee suuxee yow di nga rëcc nax nga sa bopp da nga nax sa bopp parce que nous ñi yemuñu Mota, il faut que nous sauver ONAS. alors sauver ONAS ça va commencer d'abord par les le collectif des travailleurs yi nekk foofu ONAS ñoom ñoo war taxaw comme bouclier. Hmm. comme bouclier. Hmm. ne leen du fi jàll tey du fi jàll ëllëg. Hmm. yéen ñaar yi amé problème dem len nga régler sen problème en dehors de ONAS. man loolu gëm neen leen dem régler seen problème en dehors de ONAS ONAS institution la boîte la bo xamantene Sénégal moko mom té duñu baye Ken, Ken, Ken, ken mu normal ko. donc moo tax ma gëm ni les travailleurs de l'ONAS luñu def ni moy manam sen wareef la. alors c'est clair. sen droit la. c'est clair buñ ko défé war buñ ko defee war nañu ko def buñ ko defulee tamit war nañu ko def. alors secrétaire Alpha mi ngi noonu exactement par rapport ak li nga xam ne